ganum njariñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk nu fi nun ñépp yal na nu teeweeti ñëwam bu rafet déwén te fekk nu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na nu fekk ak xol bu sedd ku yiw te fekk ay njariñ ak mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na nu fekk ak may gusu xali may te fekk nuy bari taw féex ak